Heavy Bass.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 nee ñu jamono yi defkatu ñaawteef yi fa la ñu def seen sale ba yoon daanaka quartier yi fa nekk yëpp samba booy yi dal nañ koy visiter quartier bi ñu fa gën a sonal nag mooy quartier saare gille ndax ca boobu quartier rek ba ñu fa duggee daggi nañ fa ay boutique yu bare bare guddi 23 jëm 24 septembre bi weesu boori 2 heures du matin le fukki samba booy juróom yoo xam ne dañoo sol ay kagul armé ba mar dee taali ay fusil de chasse ay pistolet ki jaasi boobu fekk mu ngi taw taw bu metti ñu dal ci profito attaqué hôtel virage bi nekk ci quartier Tamba Socé bi ñu ñëwee fekk fa ñaari vigile yi dañ leen a jàpp takk leen bañu ne ngodd dal di jubal ci bureau directeur bi daj ji coffre bi ubbi ko fekk fa lu toll cent mille dal ko ne tungaañ yóbbu fi mu ne élément commissariat central hôpital bu Tamba ñu ngi ci seen kaw ma ne ko doo leen rëcc de moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca armée lu romb na doy waar benn maire daal ak sëtam ñoo fa doon jéem a suul ab liir te présenté wuñu benn permis d'inhumation xale bu jigéen bi nee ñu mu ngi am juróom di ab élève bu doon def troisième moom daal dafa ëmb bi mu ëmbee mënu ko woon a naka noonu ci la avorté ca caaro yi bi loolu amee nag ci la maam ji dal di lëmasee liir bi dal di koy dugal ci ab siwo ñoom ñaar ñu wutali armeelu Yoff bi ñu ñee nag armeelu Yoff ngir suur bi maam ji erreur bi mu def mooy doon laaj laaj fu muy mën a gase bàmmeel te présenté wul benn certificat d'inhumé naka noonu na ci la ñu informé gendarmerie bu Foire ñu ne cëpp ci lieu bi daal di leen teg loxo li gën war nag bi ñu interrogé xale bu jigéen bi li mu wax mooy dafa ëmb te xamul kan moo ko ëmbal moo tax mu def lu ni mel maam di jàppale ko ci askay moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax rapport ANSD yi nag moom nee nañu taux de bi nekk ci réew mi yokku na ba jéggi dayoo ñàkkum xëy gi daal foo ko natt wees na ko rapport ANSD yi waxati ci Sénégal ne Sénégal mooy réew ci àdduna bi nga xam ni ñoo dàq lekk mburu ci àdduna bi popotalaw séeréer yee nee ñu senegal bis bu nekk dinañu lekk dix kilo bagetu mburu ma ne leen nag kon réew mi nañ leen ko soppi tuddee ko seeni mburu ah comme réew mi séeréer yee ko jiite kay xam naa ni lekk mburu mi dana gën a yokk mu doonoon seen xibaaru bës di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz